mbir bu amé nga jangat le contexte contexte bi nga xamni mom le premier ministre euh, ñëwé daal di euh, wax lolu ci concours général la nga xamni la fête de l'excellence. té fête de l'excellence bi concours général man mi ma nga fa won toog gis ni jigen ñi nga xamni ñoom dañ leena ñu bari ay ibadu lañu donc par rapport à que euh, mu gis effectivement l'excellence ñu yi ñom ñoo ci déclaration bob donc déclaration bi ci contexte bobo lañ ko wara mais aussi baxna aussi tamit bu ni euh, dina permettre ñu revisiter le débat sur la laïcité mais baxna man lenn euh, voilà apprécié n'ako moi euh, la sortie du ministre de l'éducation pour au moins camper mm. euh, le débat parce que mm. on est dans la société éducative l'école c'est l'école de la communauté l'école par la communauté et l'école pour la communauté donc il faut que nous sachions école école publique mu école catholique école askan hmm. donc comme école askan wi filles Sénégal ñu nekk 97% hmm. de musulmans 3% pour yi nekk ay chrétiens te dara mosu ñoo wala vraiment beau bëgg beau gisee dialogue islamo-chrétien dëggantaan vraiment fii la fekk donc bon vraiment mashallah, bu fekkee ni trouver ay stratégie pour que suñu nous ñi nga vraiment euh, elles sont excellentes Nous devons accéder parce que lolu aussi constitution est très la ko mm-hmm. parce que dafa ni euh, véritablement euh, y a la laïcité kenn ku nekk war nga mën fréquenter école de xamni remettre en cause ces droits fondamentaux c'est-à-dire la liberté religieuse loolu dafa am solo mais bu fekkee ni yow euh, établissement bi mi ngi restreindre yow euh, say say droits fondamentaux lolou aussi lu ñuy la hmm. mais du lo xam tamit dañ ci euh, japp di ci di créer des polémiques stériles mais dañuy xol parce que ñun ñep Sénégal n'y ñoo ko bokk muy chrétien bi muy musulman bi ñun ñep ñoo ko bokk nañu xol nan lañ yan stratégie la ñu mën a teg pour que ñu mën a waxtaan André André euh, abi André Latir ci gisul loolu lu mu gis mooy mhm. dafay exiger à ce que on respecte l'église oui le respect lay lay wax foofu oui mais man de man de ci li ma gis man hmm. euh, Bassirou Diomaye le président Bassirou Diomaye Faye le premier ministre Ousmane Sonko ñu respecter jàngu bi lañu parce que man seetaan na ci ay euh, voilà euh, ci seen i sorties yoo xam ni euh, voilà dañ ko jagaleel église bi di ci wax ay wax yu rafet ak ci ñoom ah bon man gisuma réeroo c'est que nag le débat de fond mooy laïcité dafa nekk problématique yoo xam ni bon en France moom polémique bi du mës a fay mais ñun bu fekkee nag dañ ko bëgg ñëwaat réveiller fii hmm. man je trouve que voilà nous trouver des des stratégies mais man qui gisuma ay réeroo entre jàngu bi hein, le Leclerc et euh, euh, les hommes politiques parce que euh, c'est une question très sensible hmm. te lolu man gis ni war nañ ci trouver ay solution yo xamni dina permettre au moins une part importante des élèves excellente nga xamni dañoo nek ibadou te ñu mm. accéder foofu ñu mëna accéder à ces établissements. Mm. parce que la formation l'éducation bon kenn ku nek tu es libre. ah d'avoir ce qu'on appelle euh, say say signe ostentatoire yoo xamni boudé France dañ ko bañ ñun Sénégal. Mm-hmm. mën nañ ko accepter parce que bokku mm-hmm. ñu ay réalité culturelle France ni ngi nii euh, am ñu nga xamni euh, dañoo daganal góor jigéen ñun dañ ko bañ. Mhm. du deug donc mhm. bon réalité yi bokul mais man dal li bëgg dal moy mhm. ñu xam ni euh, Sénégal bi ya la cohésion sociale. ya la paix ñu bañ jëm jéem réveiller les démons hein, de la séparation. la séparation voilà. Euh, Saliou euh, Sow Abbé André.